d'accord nañ sama doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement procédure la na song ma ay coup de ki na song ma dóor ay coup de sommation ki nga koo rey mandat nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nañ. audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee ñu auditer samay doom samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement procédure laa respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. mandat bi nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop ñu si jógee ñu auditer samay nga xam ne. télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce euh, ni koy amalee àllarba bu jot ci waxtu bi ñu dikk ci ak yéen muy émission boo xam ne dinañ leen ko fàttali rek euh, li ko tax a jóg bokk na ci euh, Faram Facce tolluwaayu réew mi ci wàll yépp nag loolu mooy li nga xam ne moo sabab émission bi ñu leen koy defal en direct àllarba bu jot ci waxtu bi Euh, tey nag ñu am ci ay gan mm, gën a yaatal émission bi ndax euh, dafay am solo itam euh, parfois ñu tànn ay nit yoo xam ne jàpp nañu la bu ñu leen dalalee seen xalaat dina gindi askan wi ci tolluwaay réew mi loolu moo sabab tey ñu fa yéene ànd ci émission bi ak maître Ousmane Seye maître maa ngi lay nuyu. waaw di nuyu say ñu fàttali di aussi ñi ma bokkal waxtaan. ñu wax ni itam yaa ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar. voilà jërëjëf ñu nuy docteur Cheikh Dieng moom mi ngi bokk ci parti démocratique euh, Sénégal ak coalition wàllu ñu ngi lay nuyu docteur Cheikh. maa lay nuyu bu baax a baax Pape Ngagne di la nuyu di la ziare di nuyu di ziare également tous les téléspectateurs euh, yi nekk ak ñun di ñu seetaan di am plaisir également di nuyu les invités yi ma bokkal plateau bi. voilà ñu nuyu Abdou Karim Fofana moom itam di ri ñu dénk ko lu aju ci wàllu PSE mu nekk itam candidat Benno Bokk Yaakaar ci bokk ci benn bokk maa ngi lay nuyu Papa Ngagne di la sant bu baax ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi suñu mag maître Ousmane Seye ak suñu mag docteur Cheikh Dieng di nuyu mbokki Sénégal yi suivre yëpp télé Futur Média leen jaajëfal. bismillah voilà ñu wax ni bëggoon nañu ànd ci émission bi ak. Euh, Pastef ndax am na kuñ ci waxaloon ba mu waroon teew mais xam naa dafa nekk ci ay xat-xat Euh, jombul beneen yoon incha allah dinañu ko mën a gën a yaatal ak ñoom euh, maître Ousmane Seye la ñuy tàmbalee euh, waxtaan bi ndax ku ne gis na xew-xew bi xew tey ci convocation boo xam ne convoqué nañu ko kenn ci leader politique yi nekk candidat ci élection yi la ñu jëm muy Barthélémy Dias nekk candidat Yewwi yi Wi li xew gis nañ ko ci convocation bi arrestation bi gis nañu ko ñu wax ni notifié nañu leen seen garde à vue gannaaw bi ñu dégg ni libéré nañu leen ak coow li nga xam ne yëpp am na ci ban gis-gis nga am ci loolu maître Seye. jërëjëf mais dama ci xaw a am jaaxle parce que coow lu fi am tey yëpp ak jàpp beeg euh, alkaati jàppante ak nit ñi man dama xamul lu ko waral parce que ci sama xam-xam bu gàtt. Mhm. mbiru Diaz Barthélemy Diaz boobu ngay wax euh, foog naa dañ ne dañ ko waroon àtte ca bi mbir mu biñ ko jundee man bi ma ci gëstoo may gis ne mbir moomu àtte nañ ko ba pare pour une première fois mm-hmm. après Barthélemy Diaz def appel sur les intérêts civils mm-hmm. en fait li muy contesté moom mu ne liñ ko condamné ñaar fukki million ak juróom pour mu dàmpe ko famille Ndiouga Diouf loolu rek la contesté mais tëj bi ñu ko tëj deux ans avec sursis dont six mois ferme kooku d'accord na ci parce que defu ci appel procureur de la république moo d'accordul ci tëj boobu parce que dafa estimé ne tuuti na moo def appel procureur de la république moo def appel au plan pénal mais Barthélémy Dias deful sax appel au plan pénal il a fait appel sur les intéressés. mais kon convocation bi ci ban appel aju. déglu nag maa ngi ñëw. Mhm. bi mu bi ñu ko attee ba pare mu def appel yi ñëw. Mhm. xam nga ban ndat lañ ko njëkk a évoqué devant le tribunal. 25 septembre 2018 maanaam ëpp na ñetti at tey. Mhm. lañ ko évoqué ca yëf yi sax plaidé nañ ko tribunal. ay avocats yam plaidé nañ sur les sur les exceptions maanaam affaire yu nullité. nañ ko le 16 juin 2018. tribunal rejeté exception yi le 25 septembre 2019 première phase boobu xam nga donc loolu muy avocat bi muy client bi ñëpp xam nañ ne yëf yaa ngi fi depuis ñetti at ñu xëy suba avocat bind ci Facebook am daa ne bi Barthélémy Dias déposé candidature am ci guddi ci ëllëg sa dañ ko convoqué tribunal loolu boo ko déggee. dafay mel ni ñu ngi soog a convoqué Barthélémy Dias tribunal foofu la coow li jóge ca fekk ñetti at avocat a ngi dem di dikk Barthélémy mi ngi dem di dikk ak ñeneen ci mbir mi loolu indi jaxase ci ci ci ci esprit nit ñu foog ne donc dañu lié atte mu jaas ak élection yi ca dara amu ci dañ def nouvelle convocation parce que tribunal bu la convoqué ñëwuloo wala mu convoqué date boo xam ne boobu audience amul ci matière pénale dafay def nouvelle convocation. dafay convoqué waat léegi nga baal ma dafa am lu ma bëgg a laaj ci loolu mooy ci li ñu xam xam nañu ne depuis juillet ci li ñu dégg boog plutôt Barthélémy Diaz xamoon na ni 10 novembre war na dellu. depuis le 25 septembre 2018. d'accord léegi xam nañ ne affaire bi mu ngi tribunal dañ ko war a. àtte voilà léegi ci diggante bi. depuis que ñu investir ko. comme candidat ville de Dakar bu yeewi askan wi ndax ci diggante boobu tribunal bu Dakar daf ko ci envoyé convocation wala dañ ko ci woo. wala dañ ko ci wax dara parce que dernière convocation bi le 7 juillet bi ñu ko ooyee tribunal. Mhm. ci lañ ko ko ci lañ ko renvoyé le 10. novembre entre entre entre entre le 7 boobu. ak le 10 bi ci diggante bi ndax daf ci amaat beneen convocation wala lan moo ci am. si am na nouvelle convocation lu ñu wax nouvelle citation. maanaam nouvelle citation boobu kañ kañ la kañ la kañ la ci jot. dañ ko convoqué le 7 juillet. waaw nouvelle citation bi Barthélémy bi taxu tool ñu def ko mais bu ñuy cité tribunal ñëpp la ñuy cité mais dafa amoon ay parti yoo xam ne dañ leen cité ñu war a ñëw ñëwuñu bi ñu ñëwul juge bi daal di ne procureur na nga cité waat parti yëpp le 7 juillet la ko jël. Mhm. na nga cité leen le 10 novembre. te le 7 juillet boobu bi mu ko juge bi di wax boobu Barthélémy newul de candidat la mhm. officiellement Barthélémy ñu ngi ko investir le 2 novembre le 7 juillet juge bi sax xamutoon ne Barthélémy candidat la à la mairie de ne ko woon ñoom nan nga mën a xamee ne juge bi xamu ko. parce que dama xam le 7 juillet. waaw non non non le juillet loolu xam nañ ko. waaw mais li ma bëgg a wax mooy muy jotaat beneen citation bi. ci diggante boobu. le 7 juillet lañ ko cité waat dañ ko cité le 7 juillet pour mu ñëw le 10 novembre. Ah non pourtant dama la laaj kon da déggul maître dama laaj diggante le 7 ak le novembre laa la laaj. ndax ci diggante boobu ci diggante boobu le waatuñu ko fii. non non non. le 7 juillet. d' accord la cour d' appel ne. renvoi procureur bi naa ko le novembre na oo. na ngeen wax ñi nga xam ne ñoo seq projet bi yëpp doomu Barthélemy nañ ñëw le 10 novembre. pour ñu donc su ma la déggee mooy avocat Barthélemy. xamoon na ko. non au delà de xamoon na ko. parce que léegi wax nga ni ci page Facebook am. ci la wax lu jëm ci euh, convocation Barthélemy bu bees. waaw ah. mais kon loolu amul woon loolu nga bëgg a amul beneen convocation bu bees. amul depuis que ñu investir ko. non le 7 juillet. lañ ko convoqué pour mu ñëw le 10 novembre. d' accord alors euh, docteur Cheikh soo déggee lii nga xam ni euh, maître Ousmane Seye wax na ko maître nga baal ma sa téléphone bi bu fekkee parce que daf mel ni mu ngi voilà docteur euh, dégg nga li nga xam ni wax na ko lan nga ci parce que je pense que ñàkkul nga am loo ci mën a indi ci ci ci leeral ci wàll boobu. dama bëgg d'abord balaa may dugg ci boobu sujet vraiment ma masawu. Mhm. Barthélémy Dias masawu euh, Malick ak Pastef ak. le, le leader de Pastef Ousmane Sonko ak tous les citoyens xam tey police daf leen brutaliser dans la rue tëj leen ci kaso bi garde à vue avant ñu leen di libérer. dans dans la soirée. ci kaso bi ah. waaw dem ci dem nañ dem nañ ci dem nañ ci dem nañ ci garde à vue. avant ñu leen di libérer dans la soirée. massawu leen. ci coono bi nga xam ni tey nguur gi teg na leen ko marqué aussi la solidarité du Parti démocratique sénégalais et de la coalition Wallu à ses leaders de l'opposition yu ñu brutaliser comme démb ni ñu brutaliser le député yi ñu masawu ko aussi wax rek ni d'accorduma mhm. du tout ci li maître wax léegi mhm. d'accorduma ci du tout parce que il y a deux ans. Mhm. Barthélemy annoncé na sa candidature. kon il a deux ans xam nañ ni yi dina am te Barthélemy Dias dina ci nekk candidat. Mhm. kon l'excuse que wax nañ ko depuis le mois de de juillet ne tient pas la route du tout. Mhm. ba bëgg fàttali également que ce dossier de Barthélemy Dias fukki at la. ça fi dix ans. en dix ans le pouvoir de Macky Sall amul possibilité wu vider affaire bi or Macky Sall lui-même taxawoon na ci kër Barthélémy Dias ni ko defoo dara. dangaa loolu moom moo ko def euh, dangaa def euh, self euh, légitime légitime défense. alors ce problème jëlaat relancer na machine judiciaire bi. lorsque Barthélemy a refusé mu dem topp ji président Macky Sall ànd ak moom mi wane ni kon président Macky Sall def na ma nee na mooy instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques et sax il faut avoir que les Sénégalais aussi aient le courage de dire la vérité tel qu'elle se présente frontale mm-hmm. lu tax du premier cas mm-hmm. <coughs> président Macky Sall première entreprise de destruction de ses opposants di utiliser justice mi ngi ko tàmbalee ci Karim Wade tëj ko en violant tous ses droits condamné ko sans avoir donné benn preuve que lañ ko doon tuumaal def na ko exilé ko génn ko réew mi loolu beneen débat benn ñaar mu defaat ko ci nga baal ma. dama lay justifier. waaw d'accord c'est l'instrumentalisation de la justice. waaw waaw waaw ok pour écraser des adversaires politiques. ok waaw loolu laa lay démontrer. ok allez-y waaw. parce que la ñu condamné Karim chaque fois que treize fois bi Karim Wade demee sur des cours indépendantes du président Macky Sall dañ ko dañoo tegg tuumay. d'accord alors mu def la même chose ci Khalifa Sall. Mm-hmm. la CEDEAO dafa dàq li nga xam ni moom la procès bi li mu demee. Mhm. moo ne ni kon bu dee justice nationale rek président Macky Sall am na capacité instrumentaliser ko. Mhm. pour faagaagal ay adversaire ñi nekk ci kujje politique bi. Mhm. mu tenté ko une troisième fois avec euh, Ousmane Sonko affaire bi doxut bii kon c'est la quatrième fois mu ni bëgg naa xàllal yoon. Diouf Sarr son poulain bi nekk candidat à la mairie de Dakar mun kon naa faagaagal Barthélémy Dias alors c'est pour dire simplement que climat bi nekk mi muy ñu jëm ci ay élection dans moins de trois parce que président Macky Sall moo am responsabilité wu un climat de paix un climat de sérénité buy permettre que les Sénégalais mën a dem ci élection yi ci jàmm ak dal d'accord sénégalais bu ci nekk tànn ka nga xam ni moom nga bëgg mu jiite la wante doo faagaagal ñi nga xam ni ce des adversaires sérieux pour xalal yoon ñi nga xam ne ay tokaar lañu ci sa biir ci sa biir équipe d'accord Cheikh répond d'accord xam naa di nga amaat occasion bi ñu amal defal ma beneen réponse bu gën a technique par rapport ak ni la maître Ousmane Seye interpellé ci ci dossier bi c'est vrai que am nga loo ci aborder lu yaatu mais xam naa ni di nga ci gën a amaat euh, beneen wàll bu gën a bu gën a technique ci réponse parce que dégg naa li nga wax ah ba wax ñu sax que exile na Karim Wade génne ko loolu moom li ma la ci wax moo ci nag xëy na dañu am beneen occasion bu gën a yaatu ñu gën ko faram-fàccee man ak yow ci wàll boobu léegi ma ñëw ci monsieur le ministre euh, Abdou Karim na euh, wax na ko léegi moom Cheikh. Mhm. est-ce que dina yomba layal président Macky nekkat lii. Euh, faagagal opposant moo ko ci moo ko ci tax a jóg est-ce que loolu di nga ko mën a wekki teg ko fële euh, gis nga exemple yi nga xam ne joxe na ko ci dégg nga itam li nga xam ni Barthélémy Diaz wax na ko ci sorti bi nga xam ne ci lu leer mu mu expliqué ko mhm. wax nga itam wax na bi nga xamee ni te vidéo yi ñëpp gis nañ ko président Sall dem seeti Barthélémy encouragé ko mu nekk kaso mu investir ko yemul ci loolu ah. dafa nekk kaso mu investir ko ñu gañee ñu génne ko ndax yaakaar nga dina yomb ci ñu lii nga mën ko ci defendre moom président Sall. waaw maa lay gërëm di la sant man euh, docteur Cheikh Dieng su ma déggee muy wax lii damay jaaxle ndaxte bu ñu fàtte ne Ndiaga juuf mii nga xam ne tey euh, moom moo la bakkanam rot ci ay enjeu politique defe naa ne ci waa PDS la doon defendre ci jamono jooju la ñu koy tuumaal ne moo ko defi woon ca siège u Barthélémy Diaz ba loolu dal ko ci defe naa ne day mel ni ñoom amuñu kóllëre ak moom ndax wax dëgg yàlla euh, d'abord nañu fàttaliku ne benn bakkan moo ñaareel ba euh, li nga wax dama ciy sawar a wax bu fekkee li nga wax yëpp ne président Macky Sall moo ko def ba pare justice joxe beneen décision bu saafaanoog moom la mu jàpp ci jamono jooju kon loolooy wane ne justice su Sénégal alhamdulilah mi ngi dox ma waxaat la beneen exemple semaine bii passé kenn ku bokk ci mouvement activiste ku ñuy wax Karim Xurum Xaq dem na justice ak Mame Mbaye Niang ñu relaxé ko ne deful dara ci ay tuuma yu mu doon teg ci kaw Mame Mbaye Niang donc Sénégal du ñu démocratie cuune du ñu démocratie bananière démocratie yooyu nga xam ne 1960 ba léegi ñu ngi fi lu waay bëgg moo fi am man mii nekk naa directeur général patrimoine bâti di dem tribunal ak ay nit yu déposé plainte contre patrimoine bâti wala man ma déposé plainte ñu ñuy gagné donc loolu c'est pas un débat li am mooy li maître Ousmane say wax léegi yéen waa TFM ngeen teg tableau bi wane ne les faits c'était en décembre 2011 la Ndiaga Diouf ñàkk bakkanam ñu jóge ci décembre 2011 ñu toog ba 2017 door koy àtte mhm. biñ ko àttee ñu daan Barthélemy Diaz ñaari at ak genn wàll ñu ne ferme bi la partie ferme mi ngi nii six mois la ne deux ans yi sursis la ne moom dafa war a fay vingt cinq millions famille ki nga xam ne moom la bakkanam rot dégg ngeen démb li mu ci wax duma ci dellu si ndaxte kàddu yu ñàkkee noonu teggin ak yu ñàkkee noonu wor ma defe naa ne mën nañ ko bañ a ci koo xam ne euh, dafa génn àdduna léegi nag bu fekkee ñun dañu bëgg am république ñu ne république la ñu am bu fekkee dañu bëgg am anarchie ñu ne anarchie la ñu am bu fekkee homme politique bu la neex boo defee li la neex nga ne non dañ may tuumaal dañ may def li dañ may def la léegi nii wax nañ ko le juge le 7 juillet moo xamoon ne Barthélémy mooy doon candidat mairie Dakar kon xanaa kon a un dossier soo am bu ñu denc tamit wala un dossier diw wala un dossier Doudou Wade bi nga xam ne moo nekk coalition Wallu le 7 juillet ñëw nga déposé dossier juge bi renvoyé ne euh, di novembre laa indi woo kan moo xam ne sax 10 novembre lu mel noonu dina am donc il faut que ñu dellu si ànd ak suñu xel li am kay mooy suñu genre opposant yi moo changé ndaxte ñun gis nañ fi opposition bu ne depuis 1960 ñoom Majhemout Diop opposé nañ ñoom président Ablaye Wade opposé nañ ñeneen ak ñeneen ku nekk defee ni nga xam ne loolu lañ ñu jàngal ci démocratie ak république mais ñun li ñu gis boobu ba léegi xam nga mooy lan kenn du la tudd ku la tudd nga saaga ko ci internet ko koo saaga ci internet boo génnee ci mbedd mi bu ñu jëlee décision de justice nga ne kenn du ko fi appliqué ci loo xam ne xam nga na ma yàlla baal mbirum Sonko histoire am boobu sax ñaare bugguma di ci wax ndaxte peut-être am na niveau boo xam ne boo ci tolloo ci république da ngay moytu yenn yi waaye tey ku ko gis ni mu dawee ni mu sëggee ak ni mu duggee ci biir bitig boobu ñuy wax nga xam ne warul am benn problème mu ndigg du dëgg donc il faut ñu respecter wante xam ne ay institution lañ yor bu fekkee dañ bëgg anarchie boo xamante ne homme politique bu am dossier judiciaire bu dat ba jotee bu dat ba jotee ñu ne non da nga jëm élection kon nga def loolu non xam eh, nga da nga am loo wax loo xam ne man dama si am kersa mm-hmm. parce que lu war a mën a dawloo mm-hmm. Ousmane Sonko mm-hmm. mais loolu lu ñaaw la ci suñu démocratie. ndax non si. déedéet non ndax ay takk der war nañ koy topp. Pape Ngagne non dans une démocratie non bu la justice woowee da wuyu. président Macky waxuma la justice commissariat de police. ba da ngay ci taw yi non non non non en 2011 mais attends y' a trouble à l'ordre public ou pas. mais attends mais Papa Ngagne ñi ñëwoon. G ñi ñëwoon GFM ak RFM di sànni ay di sànni ay ay cocktail molotov ak di def nangam ak nangam ñi nga xam ne dañu yoroon seen téléphone di yónnee nit ñi ay message leen menacé loolu nga jàpp ne dans une république mais attends il faut savoir raison garder. ñun bu fekkee lool la nañ nañ tëj république bi dénkaane ko. on est dans un état am na loo xamante ne nit waru ko mën def ñu toog di la seetaan demal wuy ji juge waxtu sàngam nga ne damay dem élection président Nicolas Sarkozy il y a deux semaines lañ ko woo mu dem wuy ji justice. non bul boole ñaari. non dañuy boole ñaari non ñaari république bokkul mais attends mais ñun ñun nous sommes def dafal nànk dafal nànk dafal nànk la dernière fois gis ngeen la 8 mars li fi xew dañ fi nekk am ay nit yoo xamante ne dañuy contester autorité état di def lu leen neex mais policiers yi bi ñuy egsee gis ne ay nit dañ ci rax en moment dañu dañu def jàmm loolu bu doon Sénégal bu doon démocratie bu doon yeneen dëkk lu ñaaw day am donc bàyyi nañu bàyyi di lëkkale doxalinu yenn opposants yi nga xam ne respecté wuñu institution bu problème amee nañ dem taal police mais keroog lan nañ dégg nañ dem nañ dem assiéger les sous-préfectures mais loolu dafa ñaaw ci république alors que man tey mën naa la citer ay exemple man keroog bi ma demee di déposer sama liste mais fekk naa ay opposants yoo xam ne pare wuñ seen liste ñu abal leen ordinateur ci biir sous préfecture bi ñu toog di bind lu tax exemple yooyu duñ ko joxe et loolu c'est l'indulgence des sous-préfets donc nañ respecter suñuy institution soit on veut une anarchie soit on veut une république te ñun république lañ bëgg nga baal ma maître naa ñëw ci yow Cheikh rappel def ci Ndiaga Diouf boobu nga xam ne loolu itam ñëpp ñu ngi koy fàttaliku ci jamono élection la woon euh, gis comportement boo xam ne PDS amoon nañu ko ak euh, voilà Euh, dem ci kër jàmbur yi ak ay nervi mu nekkoon comportement boo xam ni daanaka loolu ñu ngi ko doon dogg a gis sax ci Sénégal ndax loolu itam bu ngeen koy fàttaliku du ngeen ci am jeune yéen waa PDS. pas parce que quand nag dama bëgg fàttali monsieur le ministre que benn yoon PDS cité wuñ ko ci ci procès bi comme institution boo xam ni entité boo xam ni moo commandité yooyu fait mais nag tudd nañ ci ah, non ci commanditaire yi tudd nañ ah, non au delà de la waaw déet may ma déet may maa ngi ñëw may ma maa ngi li li nga wax ci laay ñëw le PDS en tant qu'institution amul benn yoon foo xam ne dañ koo tudd ci procès bi par contre y a eu des yu ñu tudd tey APR ñoo war a am gêne parce que responsable yi ñu ci tuddul transhumé nañu tey ña nga ca ginnaaw Macky Sall mu mu làq leen kon ñun en tant que PDS amuñu ci benn problème parce que PDS du commandité ce type d'acte là envers des des opposants mais dama bëgg fàttali léegi quand même monsieur le ministre que euh, titre am waru koo may muy savourer di am extase si bu ay policier di toroxal ay kilifa nga bëgg nga bañ Ousmane Sonko député représentant du peuple tout à Tout à fait. Mmh. quand quand mhm. je le vois savourer avoir une extase devant ay policiers nu ñu toroxale euh, Ousmane Sonko ba naan amul problème mu dégg parce que loolu c'est pas sain. Mhm. c'est pas sain de sa part du lu rafet ci kilifa nga toog ñu toroxal sa moroomu kilifa génn ko ci télé bi nga nga koy savourer di ko def comme une victoire et sa montre aussi ñoom ni ñu gisee pouvoir tant que opposant la rek. nañ ko envoyé ay policiers nañ ko gazé nañ ko dóor nañ ko toroxal gis nga niñ fi defoon député Mamadou Diop Decroix ay xale yu ndaw yann ko comme ku yor saaku mango et cetera ça ils ont du plaisir ils ont du plaisir à à à savourer ils ont du

dama ne dama ne. ce sont aussi les hommes politiques. combien de fois. député buy def yëfu député député on nous a dañuy toroxa ci mbedd yi. mais et ça et ça c'est les ministres. c'est les ministres de la République ñooy toog devant la télé. di ko di ko bàkkoo que toroxal nañu toroxal nañu Macky non xam nga xam nga nag monsieur le ministre vous êtes vous êtes vous êtes un ministre de la bàyyi ko ko bàyyi ko mu terminer rek je pense qu'il faut quand même waaw ah, d'accord loolu man man j'aurais été bien boo ko ñaw woon non man amul lu ma ciy ñaaw xam nga lu tax amul lu ma ciy ñaaw. tu vois loolu mooy. loolu mooy loolu mooy loolu mooy seen conception. le maintien de l'ordre public de de de de l'État. docteur mais papa nga mais papa nga papa nga nga may ma de l'État. non non non di toroxal ay di toroxal ay député. Mhm. alors que c'est pas ça l'État lu tax kenn torox l'État mooy ni dañ ko war a ah kay. non mais docteur yàgg ngeen ko def. mais attends docteur combien de fois combien de fois vous m'avez gazé dans la rue. attendez docteur combien de fois vous m'avez gazé dans la rue. non non monsieur le ministre. monsieur le ministre votre droit démocratique. monsieur monsieur le ministre wax ko ci plateau télé. la marche la un droit. léegi ah, da ngeen déposé tey la résistance à l'oppression la résistance à l'arbitraire est un droit égal. d'accord merci beaucoup alors maître ñu ñëw ci ci ci ci fitna gi quoi brutalité bi. nga xam ni gis nañu ko daanaka moo indi sax euh, werante bi ci seen biir ñoom ñaar euh, lu mel noonu ndax jàpp nga ni sam lu rafet la ci vraiment suñu démocratie. non brutalité kenn mënu ko. Mhm. mais damay rappeler man su lu lëndëm wala ñu bugg lëndëmal seen xel loolu lay gindi. Mhm. wax leen li nga xam ne mooy dëkk xam nga 2018 kenn waxul ne Barthélémy Dias candidat la 2019 Barthélémy Dias du candidat 2020 Barthélémy Dias du du candidat 2021. bi ñu àttee diggante mu Dias ak Soham Wardini c'est le 2 novembre 2021 donc officiellement ci lañ def communiquer seen coalition bi nu mu tudd. Yewwi Yewwi ci la def communiqué le deux novembre ne Barthélémy Dias mooy candidat Yewwi sinon même bu Barthélémy Dias ne woon ne candidat la c'était un candi candidature à euh, euh, candidat a une candidature la woon donc man su may wax nitu yoon la li may wax ci ay këyit laa ko teg ci ay acte jëluma fen dëgg laay wax donc Barthélémy Dias officiellement a été candidat le 2 novembre fekk na renvoyé nañ affaire bi 7 novembre pour 10 novembre 7 juillet pour le 10 novembre donc képp koo xam ne da nga lié procès bi ak élection yi yow yaay instrumentaliser la justice donc loolu lay ñaawlu d'abord dàqante policiers yi ak nit ñi ci tali bi parce que ñun li nga xam ne moom lañuy ñuy séntu ci opposition bi wax dëgg yàlla moo ñu jox ñu ay programme alternatif ay idée que chaque fois ñu ñëw di indi fitna ci réew mi fitna boobu moi je crois que chaque responsable politique fitna gi nag yaakaaroon na ci wàll yëpp la parce que ñoom aussi ñoom yoruñu ay fit yoruñu ay ay lacrymogène ah euh, yoruñu yoruñu ay lacrymogène euh, euh, Pape Cheikh Pape xam nga les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens xam nga ay nit bu ñu wootee parce que man li ma li may ñaawlu ci opposition bi je n'ai rien contre l'opposition hein je dama ne sax réew dafa am une opposition forte en loolu laay wax man mm-hmm. je suis un démocrate je suis un républicain l'opposition ne me gêne pas mais ce que j'attends de l'opposition c'est pas d'appeler à l'insurrection c'est pas d'appeler au soulèvement populaire. à la résistance nag à la résistance mais à la nag la wax sax amut. non à la doo gis fenn ci constitution bi ñu ne la la résistance à l'oppression c'est un droit amul fenn ci benn constitution xam nga je crois que nit ñi mun nañu sauvegarder seen droit mais dans le cadre de la démocratie te fi mu nii tous les responsables politiques jëm ay élections man li ma doon séntu ci ñoom mooy ku nekk boo taxawee nga jël engagement. ne nañ dem ci élection yu loo leer mais ci kaw jàmm parce que bu ñuy def élection ci jàmm moom mun a am ci réew mi pour ñu def élection mhm. bu fi jàmm amul kenn du def élection te li may gis ñuy woote ci fitna ci réew mi je crois que du jëm kër vraiment du jëm kër ma dama tiit ah, déet waay ah dama tiit non parce que tey hmm. je crois que parce que da nga nekk responsable politique justice waruloo oo bu la convoqué dee doo dem nga ñeme taxaw ne su ma justice convoqué du ma dem duñ ma atte def naa délit wala def naa crime kenn du ma atte suñ ma convoqué du ma dem mais c'est pas démocratique te yéen journalistes yi yéen tamit su ngeen di wax aussi da ngeen di wax li am je crois qu'il faut mettre les responsables nit ñi ngeen mettre leen devant les responsables cest parce que dégg naa benn homme taxaw ne suñ ma convoqué devant la justice du ma dem mais kenn relevé wu ko dégguma kenn relevé ko relevé ko comment daa di wax ne loolu du yoon bu nekkee dans un pays démocratique munoo joxoñ justice bi justice bi atteegul sax nga ne justice bi dañ ko instrumentaliser justice bi baaxul tëj na kii tëj na kee mais ñi nga xam ne defuñ dara kenn mosu leen woo devant justice bi ku am na loo def di jaxase yëf yi ne way euh, décision yi ñu rendre Sénégal dañuy dem CEDEAO CEDEAO dindi mais CEDEAO mosul dindi mosul dindi amul sañ-sañu dindi sax loo xam ne justice Sénégal yi ñoom xam nga. tu vois am na yow principe yoo xam ne ñoom dañu wax rek di wax lu leen neex alors man c'est pas mon problème mais dama bëgg askan wi sax yeewu nañ xam nañ ñi leen di manipuler ak ñi manipuler xam nañ leen di wax dëgg ak ñi wax dëgg mais dama ne li fa am tey jarutoon lii convoqué nañ la. tribunal demal déglu tribunal. renvoyé nañ audience bi. dellul sa kër nga toog. mais mais non non may ma may ma docteur Cheikh ma ñëw ci euh, ma ñëw ci foofa na le ministre euh, xam nga nag kondo bi ndey sa maam boo gisee lu ñuul daw ku gis par exemple exemple bi ni ko Cheikh Dieng docteur Cheikh Dieng waxee ci diggante euh, justice bi ak Khalifa Sall justice bi ak Karim Wade mais jàppaloo ni lu mel ni itam mën nañ ko ragal moo tax aussi ñoom ñu takkaw euh, joxe seen dënn jàpp ni ci ci ci ci musiba lañ leen jëmee. non papa man boo ma nee ku ndobin rey sa maam boo gisee ndobin dawal lenn laay jàpp mooy ñi yor ndobin bi mooy ñi nga xam ne bu élection jotee ñu créer ay coow yu amul fenn. mais Pape Ngagne maa ngi fàttaliku 2017 xaw ma 2018 bi ñu nee dañu andi loi sur le parrainage ñëpp daw créé fi coow di woo sénégalais yi nañu génn nañu def ni nañu def ni alors que amoon du dara lu dul dañoo gis ay élections Tunisie Mali 46 candidats 27 candidats boo buggee voté sax doo ko mën organiser état bu responsable jël ay matuwaayam ñu ñëwaat ne léegi euh, problème de nangam mel ni daal justice warul fonctionner comme ni mu war a fonctionner xam nga nit ñi dañuy jaawle ñaar l'idée de république et l'idée de démocratie. république mooy foo xam ne danga fi nekk nit ñi am liberté nit ñi yem mais nit ñi di respecter tamit ay règles sital naa la fi ay exemple yoo xamante ne état bi wala nit yi ne ci état bi dañuy dem ci biir tribunaux yi ñu leen di gagné mais pourquoi waa opposition bi bu fekkee dañu nekk ci situation bu inconfortable rek xëy daf la neex wax nañ léegi avocat Barthélémy Dias li mu bind li mu bind bokkul ak la réalité de la procédure toog bind sa Facebook ne wéy woo nañ ko ndaxte nangam alors que yow nañ la depuis le 7 juillet loolu foofu waxee ne ñun dañu war a li nga xam ne moom la ñu régé ci démocratie suñu maam yi nañ daan politique nga xam ne tey docteur Cheikh Dieng toogee fii ne gaz parce que mi ngi def exercice démocratique am yow dañ tëj sa télé ne la doo fi wax lu neexul état bés bu ne nga invité nit wax lu ko neex non xam dañuy wax. mais mais mais mais mais defal na. non mais tëj nañ mais dañuy waxtaan. mais bu ñu tëjul sama télé tam tëj mais le plus important mooy télé ba lan la def. ah mais télé ba lan la def barki démb maa ngi dégg benn débat sur un redressement fiscal mais ñaata structure publique waxuma la ah, structure privée waaw mais ah, kenn warul am bu ci sori tam ci loolu yow wax nga ma tëjoo sama télé te gis naa ñu tëj télé waaw mais télé boobu lan la def yow yaa ngi fay sa impôt moom lan la def mais nañu waxante xëy ñu ne dañ la woo nga dem justice nga xëy dugg ci mbedd mi ne man damay woo étudiants yi damay jàdd fi gis ngeen léegi lan moo lan moo leen yóbbu au conseil des collectivités territoriales ñu fay dem di fa taxaw c'est parce que loolu sa yéene léegi nag état bu yaafus da seetaan waaw démocratie la damay seetaan mi ngi ni au conseil des collectivités territoriales lan la joteeg dem tribunal damay dem tribunal wala dañ ma convoqué police lan la jaar ak damay jaar université donc ñun tamit duñu duñu ñoo xamante ne rek wala ñi yor état bi wala administration wala gendarmerie police duñu ay nit yoo xamante ne dañoo tëdd rek di seetaan am na ñoo xamante ne seen volonté mhm. c'est de créer des perturbations mhm. les perturbations préélectorales ça fait partie du jeu électoral yi nga xam ne anarchistes yi loolu lañ bëgg a def mais ñun li ma la bëgg wax mooy duñu suñu république doon république anarchiste d'accord alors docteur mais yaakaaruloo woon itam doon na gën a yomb ci Barthélémy Diaz mu dem répondre ci convocation bi sans point de presse sans mobilisation sans dara jàppaloo ni loolu aussi moo gënoon nekk lu lu républicain lu gën a responsable. wax nga ko ku dëbir rey sa maam. Mhm. boo gisee lu ñu da ngay aujourd'hui nous avons quand une situation de défiance objective de tous les opposants face à la justice dès lors que c'est un dossier politique je dis pas que nous avons de mauvais juges nous avons d'excellents juges nous avons une très bonne justice mais nous avons dañoo am par contre benn parc boo xam ne président Macky Sall dafa dafa day instrumentaliser parc day instrumentaliser ay juges ça j'assume ce que je dis boo gisee CREI na procès ba demee xam ne c'était des juges instrumentalisés pour détruire Karim Wade fast track bi bi nga gis ci euh, procès euh, Khalifa Sall dossier bi ñaata la matul un la parce que dañ ko waroon a condamné balaa ñu balaa élection présidentielle yi jot mu am un procès en fast track boobu fast track bu ñu ko defoon ci dossier barte Dias tey di ko waxati xañ na deux ans ñu ko tëj yàgg na mu tëdd ko xañ na appel ba vidé nañ ko depuis combien de temps 2018 la wax ba 2021 presque Khalifa Sall bépp diirul loolu. mais ça signifie que aujourd'hui il y a une volonté manifeste président Macky Sall moo yor dossier bi il faut que les Sénégalais aussi buñ leen lëndëmal maître toogoo fi pour wax Sénégalais yi dëgg toogoo fi pour éclairer Sénégalais yi je aussi il faut que les Sénégalais sachent que Benno Bokk Yaakaar nga fi toogal. bien avocat wu Benno Bokk Yaakaar. tout membre du CEP. tout à fait kon nekk une personnalité neutre. effectivement entre deux entre deux protagonistes déedéet. il mhm. faut que les il faut que les Sénégalais non xam nañ ko loolu man wax naa ko bokk yaakaar nga toogal docteur loolu wax naa ko. dafa wax leneen ci ci ci ci ci diggante bi. ok mais mel ni équilibre il faut que. mais est-ce que Barthélemy waroon na wuyu ji wala warul wuyu ji. waaw déet yow parce que loolu tontu woo ci yaay yow yaay yaay diriger bi léegi. diriger ma débat mais comme ku maa ngi ciy ñëw. ñëw ci bopp Barthélemy Dias bu wujju woon tey ci jàmm ak salaam du génn foofu dañ koy tëj. président Abdoulaye Wade pourquoi parce parce que mais président Abdoulaye du président Macky Sall Abdoulaye Wade c'est un légaliste Abdoulaye Wade. président Macky Sall bi ñu ko woowee commissariat central de. doo attention docteur Cheikh Dieng nga ni Barthélemy Diaz bu demoon wuy dañ koy tëj dama koy tontu rek parce que dafa dafa bëgg a sama débat président Macky bañ ko wooyee ma fàttali la. dafa dem ci sëñ Baara. non dafa wuyu ji. waaye tamit. Euh, dafa wuyu monsieur le ministre. dafa ci mbedd mi monsieur le ministre barki dem yàggul. dem na commissaire monsieur le ministre barki dem yàggul. dama lay laaj wuyu ji na wala wuyu ji wul. boo dégloo nga dégg de. bu boo dégloo nga dégg monsieur le ministre président Macky Sall bañ ko wooyee dafa dem ci sëñ Baara. Mm-hmm. tinu fa ñaan njekk nee nañu am na sax ñu ñun dafa jooy ba xëx pourtant yooyu itam li ngay ñaawlu ci alors li ngay ñaawlu ci euh, ci Karim Fofana moom nga bëgg a def ni aussi ci président déedéet non nañ waxante dëgg xam nga yooyu aussi ci ci ci institution bu toll ni euh, euh, nañu parce que moom muy ah, dugg ci débat boo xam ni ok xamul damay fàttali damay fàttali démb rek ci li nga wax président Macky Sall ba muy dem dafa gàddu laal di ñaawal da ngay fàttaliku pour diir que man damay dem kaso alors que c'était une simple convocation à la police. mais créewul loolu loolu loolu loolu loolu jaarul université jaarul Sandaga loolu loolu bërki démb la alors pourquoi Barth a utilisé cette stratégie parce que xam na ni nous avons une justice boo xam ni tant que c'est un dossier politique dañ koy instrumentaliser du am dara la preuve procès bi dañ ko renvoyé alors je dois rappeler également que état de droit bi muy wax état de droit la première chose mooy l'égalité des citoyens devant la loi te lu ñu xam tey ci justice su Sénégal et c'est le premier principe état de droit mooy juge tous les proche de du président Macky dañ leen di tuuma président Macky Sall daf leen di làq le cas de COUD est là le cas de la poste est là il y a de nombreux cas de prévarication xam ne les corps de ñoo ko génne dégg nga dégg nga ces documents dégg nga ces dossiers là devant la justice mosoo koo dégg kon bu ñu nee tey nous sommes dans un état de droit désolé monsieur le ministre nous sommes dans un état APR Benno Bokk Yaakaar boo xam ni boo ko boo jegee président boo ci bokkul mu làq la boo nekkee opposant ñu toroxal la tëj la ci kaso bi je voulais ci loolu ah te dire que ni dans la situation où nous sommes la justice dafa war a nekk à la hauteur des enjeux mooy dañoo soxla dem ci élection yoo xam ni dañoo nekk situation préélectorale boo xam ni lépp loo xam ne mën naa indi de troubles man na indi fitna ci réew mi dañ ko war teg ci suuf avant je veux dire après le même convocation bi ñu def le mois de décembre ñu teg ko ci suuf bàyyi lépp élection yi jàll parce que un candidat à la mairie de ville de Dakar nga ni dañoo nekk pleine campagne électorale mhm. da nga koy convoqué loolu c'est prendre les germes de trouble à l'ordre public te su boobaa nag bu mhm. trouble à l'ordre public amee du Barthélémy Dias du opposition c'est la justice qui war moo jël benn calendrier boo xam ni c'est un calendrier susceptible de troubler l'ordre public d'accord maître dégg nga docteur wax mais loolu itam xel mën na ko nangu parce que dañu jëm ci ay élections locales enjeu bi ñëpp xam nañ ko mu nekk candidat convocation bi ñu reporté ko ba le premier décembre ndax jàppaloo ni mën nañ jëm ci ay lëndëg ay ëllëg yu lëndëm ci wàllu politique ci dossier Barthélémy Diaz li may fàttali Cheikh. Mhm. mooy tey rek wala démb. Matam dafa amoon ay liste yoo xam ne dañ ko fa rejeté woon euh, ñoom ñu topp yoon. mais di xam nga affaire boobu moom dinaa si ñëw. taawaaw rek dama bëggoon ñu vidé affaire bi rek. après ñu ni waaw mais waaw mais wax léegi dafay dafay dafa ñoom dañuy ŋàññi justice rek. Mhm. Euh, ca saa yu ñu fa demee justice jox leen dam duñ ko wax. maatam bi ngeen demee cour d'appel justice daf leen jox ndam am na ay liste yoo xam ne dafa am ay préfet yu ko rejeté woon pour benn coalition pour question de couleur et bi ko bi yëgee dafa rappeler les préfets à l'ordre ne leen kii waruñ ko rejeter pour que des questions de lutte ça doit faire l'objet d'un arbitrage ñu rétablir coalition boobu dans ses droits te loolu nous sommes dans le cadre des élections te waxu leen ko je crois que nag ngeen bàyyi. non non no il faut ngeen bàyyi di jël juste gis nga justice bi ngeen di ŋàññ nii bés bu jéngee réew mi jéng je crois que ñi nekk justice di àtte ay gor lañ comme yow comme man comme kii des pères de famille am ay doom jàng ñu jox leen seen responsabilité ñaaw na ngeen de da ngeen bëgg réew mi fu ngeen toll di ŋàññu justice bi ca tegu leen ko fenn lu wax rek. naan la justice est instrumentée kuñ convoqué nga ne du ma dem dañ may tëj yow àtteeg bi la nga lañ may tëj su ma demee dañ may tëj li mu wax par exemple. non loolu laa bëgg jàmm. loolu laa bëgg woon par exemple. justice taxawal rek l'affaire Barthélémy mu bañ a am renvoi li ma ko wax du ma ci jóg waaw. man ku ma xam-xam ne su may wax fii bien que Benno Bokk Yaakaar laa nekk jarul ma fen damay wax li nga xam ne mooy dëkk te jàmm man moom moo ma ñor. li ma leen di woo man ci jàmm laa leen di woo ñu dem ci élection jàmm dem ci élection yu leer Pape gis nga li nga wax li ma la ciy tool man su ma sañoon ñu renvoyer affaire u euh, Barthélémy Dias après les élections parce que change change rien du tout su ma sañoon ñu renvoyé ko fin février ñu dem élection ba pare ñu àtte ko pour wane ne effectivement li mu def ça n'a rien à voir avec les élections que le juge buy renvoyer dans son calendrier il ne tient pas compte du du, du calendrier politico-électoral qu'il n'y a pas de juridiction politique au Sénégal qu'il n'y a pas de délit politique au Sénégal loolu il faut ñu xam ko mhm. su ko defee ñu dem ci élection après moom moom dafay jàkkaarloog yoon mais mu boobaa mais lu ko yoon teg ngeen xam ne affaire politique taxul mhm. man su ma soñoon ñu renvoyer affaire bi après les élections ces élections locales là je crois que ça va amener de l'apaisement ñu dem élection ci jàmm ñi nga xam ne nag ñoo jàkkaarloog justice du leen tere bu élection yi passé ñu jàkkaarloo ak justice justice def liggéey d'accord d'accord allez-y non non léegi wax wax nga juge wax nga juge yu baax la ñu ah, am waaye wax nga wax nga parquet bu baaxul la ñu am nañ ay juge non non non wax nga ni am nañ la justice attention attention boo jaxase justice vous avez parlé de la justice il faut l'assumer maa moom papa était un procureur mhm. bokk ci seen corporation mhm. sama papa procureur de la république la dañu mhm. fi jóge kon mënu maa nga ñu justice par contre j'ai dit tout à l'heure la CREI c'était des juges instrumentalisés pour détruire. Macky Sall parquet aussi nee nga baaxul. parquet boo mënee parquet. Ah, c'est pas le juge waaw c'est le système judiciaire. waaw attention. non xam nañ kay le système judiciaire à travers lequel non non non doucement doucement doucement. c'est le docteur man maay wax ak yow ma ne le procureur mi ngi ci parquet doucement monsieur le Karim bàyyi ko ba mu terminer donc may ma ma may ma kon ma ma expliciter. Mm-hmm. nous avons un parquet qui est dépendant mm du président de la République. Mm Je fais des raccourcis. Que le président agit sous le ministre de la Justice, le ministre de la Justice agit sous le procureur. Mm-hmm. Il y a un lien hiérarchique. Ah, loolu moo fi mës a nekk nag. Ah, loolu baaxul xam nga ni moo fi mës a nekk. baaxul <laughs> xam nga ni <laughs> loolu. loolu baaxul loolu loolu loolu loolu moo fi mës a nekk. loolu non non xam nga loolu xam nga loolu dama lay dama lay mayal. non mais jox. may ko may mu jox la après nga eggale rek s'il vous plaît. jox benn exemple. ok bu wane ne bu fekkoon ne état bi dafay instrumenter justice. wala dafa bugg faagaagal bu ko dindi aussi Barthélemy Dias instrumentalisation boobu moom bu ko fi dindi mënuloo ko dama koy dindi ba mu set wecc parce que man xam naa ne mais quand même lu ñu wax ne mais mais Macky Sall le président de la République mais on vous a donné mais comment il peut donner des instructions à un juge instrumentalisation de la justice amul loolu moom amul dañ koy wax mënuñ ko démontrer am na je vais vous le démontrer du ci du ci du ci du ci eeru Macky Sall la fi amee mais xam ngeen ni loolu yàgg na fi wax nga li nga wax léegi ci ci ministre de la justice wax nga ko ci procureur de la république te loolu yàgg na fi moo tax j'ai fait un raccourci pour dire c'est le président non non maître non dama lay wax sénégalais yi si ñooñu déglu ma non Pape mais déglu ma rek may ma def précision parce que non non non le procureur rek yow yaay daane le procureur de la république ce n'est pas le juge waaw le ministre de la justice ce n'est pas le juge ils peuvent même recevoir des instructions le procureur ou bien le ministre waaw waaw mais loolu la ñu wax mais il peut pas instrumentaliser le ma wax la dama wax ne le juge yi. non mais ay góor lañ comme yow. ils sont protégés par la loi kenn ñemewul ñëw muy procureur wala ngay juge ñëw fekk Karim mii nekk juge nga ne ko juge de mais quand yow kon yow yow yow nga ko yow boo nekkoon juge di nga ko nangu. d'accord léegi pourquoi yow loo dul nangu nga nga nga bëgg ko teg sa sa morom. c'est bon c'est mais non, je défends la justice bañu ma ko je défends Benno Bokk Yaakaar je défends et la justice et Benno Bokk Yaakaar ci dëgg alors dama lay won benn affaire gis nga man man euh, xam nga avocat la gis nga tey bu état bi bëggoon faagaagal Barthélémy Dias sur le plan politique lan lay def wax naa la léegi na la dañ ko tëj deux ans avec sursis dont six mois ferme pour crime n'est-ce pas moom deful appel ci décision boobu bu parquet bëggoon parquet du def appel wala mu désister wu de son appel à l'égard de Barthélémy Diaz la décision devient définitive il ne pourra plus s'inscrire sur les listes électorales il n'est plus électeur ni il n'est plus éligible ni électeur mu jeex te ñoom xam nañ ko magistrats yi xam nañ ko alors du dëgg bu looloo gën a gaaw mais même parquet parquet voilà léegi léegi léegi parquet bàyyi bàyyi ko taxaw rek parquet def appel waaw suspendre décision bi Barthélémy Diaz aujourd'hui il peut être candidat il peut être parce qu'il y la présomption d'innocence sauf bu ñu ko condamné définitivement. d'accord alors lépp li euh, ngeen bëgg wax. léegi bàyyi ko mu bàyyi ko mu terminer docteur maître maître calme rek. Ah, d'accord allez-y man maa la gën a calme. <laughs> je euh, dis loolu li ma li mu mujj wax c'est une disposition boo xam ñoom dañ ko dugal ci pouvoir pour faagaagal Karim. alors depuis tu parles des articles L31 L32. waaw maître yi nekk ci constitution bi avant Abdoulaye Wade. maître calmez-vous. avant Abdoulaye Wade. maître bàyyi ko mu terminer. non il faut ma rectifier ko. avant Abdoulaye Wade électeur éligible laay oui avant Abdoulaye Wade. déedéet électeur éligible c' est depuis Karim Wade. c' est la même chose c' est les articles L31 L32. c' est depuis Karim Wade. moi j'étais à la commission politique. ah waaw oh, yéen tamit maître li li li li li ma wax yaa ma gën a xam avocat nga. Mm-hmm. alors. moo tax ma lay rectifier. je dois repréciser. Euh, waaw. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une bonne justice, nous avons d'excellents juges mhm. qui sont partout à travers le monde félicités. Mais nous avons des juges, insur... quelques juges instrumentalisés. Il y a des juges instrumentalisés. joxe naa il faut le prouver. waaw bu prouver naa ko. xam nga pourquoi nga koy prouver. wax naa ko léegi ci Khalifa Sall. Khalifa Sall sa justice sa euh, son procès était instrumentalisé. ah bon il le prouver avec oui. ah, ah mais la preuve. c'est facile de le dire. la preuve la CEDEAO a. dit clairement. que la procédure n'a pas été les les droits n'ont pas été respectés. au contraire le contraire que la CEDEAO a dit. la CEDEAO a dit, que les oh, droits de Khalifa Sall ont été respectés. les droits n'ont pas été respectés. non c'est pas vrai. Euh, parce qu'il était avocat il était. Euh, il était euh, euh, député. on l'a on l'a jugé. sans avoir ah, Khalifa Sall bi ñu koy au la justice boobu député la woon c'était l'article 5 boobu député la woon. c'était l'article 5 bi ñu koy au jox la jox nga raison ma ñëw. mais dama la yow demoo. Ah, ma ñëw ma ñëw ak ville de Guédiawaye. ma ñëw yow en tant que opposant nga gagné. ma ñëw. donc il faut arrêter de dire que voilà. la justice ne fonctionne pas. donc c'est jamais la justice. yow dans une émission da ngay wax ne la justice ne fonctionne pas ne la justice fonctionne. il y a il y a il y a il y a un tir de barrage. non non mais ma ñëw ma ñëw ma ñëw taxal fasaan rek. mais mais au niveau oui non mais li muy wax leerul. vous allez vous allez être à deux. non mais attends vous allez tirer à boulet rouge. non non non je perdrai pas une seule fois le fil de mon. non non vous ne perdez pas le fil. voilà voilà monsieur le ministre on vous a toujours on vous a non mais non mais on n'a pas de problème. ce qu'on veut c'est qu'il soit c'est qu'il soit cohérent il a dit tout à l'heure y a il y a une volonté manifeste du ministre je pense et et ça un ministre de la République et qu'on va dans un plateau on doit avoir le minimum de routine on est dans un débat politique si vous dites des choses incohérentes on vous le je suis désolé tu vois ma bàyyi la nga incohérent xam aussi c'est ce type de de ministre que la République yoo il ne respecte seen fonction. on est dans un débat politique et ça c'est et ça c'est et ça c'est on est dans un débat politique on vous a posé une question. sur la pertinence de la xam nga ministre dafa xam nga ministre. léegi xam ministre day fort xool bu ñu jëm ci qualification yi. boo ñëwee ci ministre tamit tuutil sa bopp. waaw mais d'accord donc donc boo boo amul boo amul tuuti calme. waaw mais on n'est pas là aussi pour perdre notre temps. dire na wax lu cohérent justice bi baax na justice bi baaxul. gagné nga fi procès contre la ville de Guédiawaye justice bi baax na boobu. voilà voilà donc donc donc je pense que ce type de comportement. waaw c'est que c'est quand même déplorable. de la part de de allez-y allez-y alors j' j'en avec euh, maître maître Sey pour lui pour lui dire des qu'on a des juges instrumentalisés je le dis je le maintiens dans le cadre du procès ci procès wu Khalifa Sall. soo ces droits dañ ko violer bi ñu koy entendre au niveau du au niveau de la police mhm. en violant donc nu euh, tudd le le pacte de la CEDEAO mhm. donc en son amendement numéro cinq qui demande la présence d'un avocat bu nekkee mhm. Euh, au niveau du de la police ou de la gendarmerie. Mm -hmm. vous, le confirmez. non voilà donc euh, loolu c'est premier aspect. et je dis que ni ñu programmer tout le procès pour terminer ko avant ñuy àgg ci élection sa prouve une instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall e ça je le e je le mm. maintiens kenn mënu ko dindi il a donné un excellent exemple man seen plateau bi le plat beneen plateau laa toog féliciter la euh, la chambre de la Cour suprême parce que procès bu metti la woon la contre Aliou Sall le petit frère du président de la République mu jaral ko lu nekk par contre li mu waxut mooy bi ñu jógee ci foofu ba ju ba cour suprême jox ma dëgg président Macky Sall dafa profité waat ci bi muy départementalisé Kër Massar weddi la nga xam ne moom la procureur moom la cour suprême wax muy instrumentalisation de l' appareil administratif. pour régler des comptes politique parce que nan la ko defee. voilà alors nu mu ko defee mooy bi ñuy bi ñuy départementaliser Kër dafa cabaxal ci biir décret bi ni la partie nord-ouest d'un quartier bu nekk biir Djeddah Thiaroye Kao appartient bien à wax Nimzatt alors que justement boo partie mu wax. ci yow la moom la Cour suprême envoyé des experts ñu ñu expertiser ko. et c'est sur la base de de l'expertise de la Cour suprême le ju cour le chambre administrative tranché woon ni bii parti ci Djiddah Thiaroye Kaw la bokk bii parti moo nekk ci marché bi kon ji kon maire Cheikh Dieng moo ko moom. pour pour pour jox ma dëgg. merci beaucoup et c'est ce jugement de la Cour suprême. moom la moom la président Macky Sall tordre le bras. pour ouais. que mën a satisfaire. son son petit frère. de voilà d'accord merci beaucoup alors euh, euh Karim. Euh, ci argument yi Barthélemy joxe nag daf ni dafa am sondage boo xam ni euh, dañ da ko defoon moom mu jiitu jiituwaat ngeen jàpp ni dafay nekk maire de Dakar wax na loolu sondage yooyu moom am na ci yoo xam ni itam nit ñi gis nañ ko wax dëgg yàlla ci ay sondage yu leer yoo xam ni mi nekk na en ci ci wàll boobu ndax itam loolu joxul dëgg ñi jàpp ni mbir mi kat am na xeexu politique bu ci nekk. non xam nga Papa Ngagne sondage moom fan yi gis nañ lu ne ku ne génnee na sondage sondage day am institut bu vérifiable bu am capacité bu koy def. Mhm. am méthode d'échantillonnage du dëgg. am méthode des quotas wala leneen ñu organiser ko mais man loolu gëwuma ko li am. wax nañ ko mais gëmoo gis nga ko. xamee ni ko ñëpp gis. non man sondage yi wax ni ak yi mu man man bu man bu ma la waxoon sondage yi ma gis dinaa xa dinaa la wax lu tax Barthélémy Dias di def lii muy def nii. bu ma la woonoon man sondage yi ma gis di nga xam li tax bari parce que d'abord une élection municipale n'est pas une élection nationale oui contre Macky comme li muy wax rek dañu cabaxal dañu instrumentaliser victimisation c'est-à-dire loolu sénégalais yi miin nañ ko li am Papa Ngagne ba am mooy décembre 2011 am na nit koo xam ne bakkanam dafa rot coow li bëri ñu dem ba 2017 ñu àtte bi ñu àttee mu am appel bi mu amee appel ñu dem 2018 renvoyé 2019 renvoyé ñëwaat ba 2021 renvoyé mais eh, Papa Ngagne lu tax nit ñi du ñu wuyu ji wax nañ fii ba tàyyi ne leen état bu ñu buggee mu fonctionner il faut que ñu bàyyi justice bi nga xam ne bu ñu def ni docteur Cheikh Dieng début émission bi nga ne baaxul digg émission bi nga ne baax na après nga ne gagné na mais sa marché boobu décret décret moo la ko joxoon répartition wu non defal nank oui mais defal nank c'est pas la justice qui donne la justice la justice des sa la justice tranche la justice tranche ah, un contentieux tranche un defal nank mais defal nank la justice tranche un contentieux mais marché li koy définir fii la bokk wala fële du bokk bu fekkee dévolution la arrêté préfectoral la bu fekkee nag ay limitation bu fi ah, defal nànk waaw mais defal nànk bu fekkee limite limite de commune la décret moo koy jox kon le président de la république mën na wax ne waxi naan la wala feneen wala feneen deful lu dul li nga xam ne loolu la ko loi may mais liñ la bëgg a wax xam nga mooy lan ñun nekkuñu ci réewu anarchie nekkuñu ci réewu anarchie on est plateau politique dañuy waxtaan li am mooy da ngeen am ay opposants yoo xam ne defkat lañ moi je vais jamais m'extasier ici sur un plateau ci lu dal kii wala lu dal kële mais je dis que c'est dommage que ñun tey niveau d'opposants yi ñu am ay daw dugg ci bitik làqatu daw génne ay étudiants mais nañu waxante dëgg mais loolu kat moo ko def keneen defu ko fii autorité yi fi mos am yëpp mais parce que parce que mais ah, mais ah, attends mais là il faut que la justice fonctionne dañ leen dax ak ay lacrymogène mais papa ngañ bu la justice woowee yow la ngay def da dugg université da dugg buntu institution yi da woo nit ñi nekk ci réseaux sociaux yi di bind ay message naan ñëpp nañ daje nañ def nangam nangam on résiste à quoi Sénégal ñaata yoon lañ fi woo ay nit leen yóbbu justice ñuy wuyu ji mais arrêtez de dire bàyyi leen li ngeen di wax sénégalais yaa ngi liggéey on dit à quoi dañuy dem toj ay ay ay boutique nangam euh, yàq liggéeyu ay sénégalais ana ñu doon liggéey total 1200 yi nga xam ne tey ñu ngi toog seen kër boutique yi fonctionné tul ak yeneen yaa ngi daw sa émission tous les soirs nit ne du démocratie du ak yeneen yoo xamante ne tey jii waruñu ci mën taxaw fii parce que situation bi arrangé wuñu hmm. parce que ñoom dañ gis Euh, ci population yi dama lay jox benn exemple rek ñi ngi wax investiture yi nit ñaa ngi politique di porte à porte di wër di waxtaan ñoom boobu léegi ñi ngi defar ay liste jiitu doo jiite wàllu gannaaw suba nga ne diw ñëw na donc loolu du du li xam ne moom la askan bi di xaat ci ñoom. d'accord merci beaucoup euh, maître Ousmane Seye ñu ñëw ci euh, coow local yi nga xam ni mën nañu sab wax ni sax bokk na ci li sabab coow li ndax peut-être Barthélemy bu nekkuloon woon candidat coow li fi am ni du fi am mais mu am beneen coow boo xam ne daf ci nekk te jaaxal ñu bëri fu bëri ci dëkk bi. muy ca Ndar muy ca Thiès muy foo mën a tudd rek lu jëm ci coalition yi nga xam dañ leen rejeté coalition euh, opposition bi la ñu bokk mu nekk loo xam ne ay fee la lu ñu teg bët la lu jaaxal nit ñi la autant mën nañu wax plus de 587 euh, bu dee collectivité la yu benn bokk yaakaar dégguñu ci benn boo xam rejeté nañ ko mm-hmm. mais loolu nag dafa dafa suspect dafa nekk lu doy waar loo xam ni jaaxal na nit ñi ndax jàpp leen ni itam lu mel noonu ak nu mu mën a demee ndax lu ñu mën a teg la ci table ni lii kat ci wàllu démocratie mën nañ ko cee rafet waaw Pape damay wax Cheikh bala ma ci tontu xam nga ñoom yu mel noonu la ñuy wax askan wi ca du dëgg dafa léegi ne xalifa Sall bi ñu koy àtte bi ñu koy àntaar dañ tere woon avocat mu ñëw toog ma koy wax ne ko cour d'appel bi fa affaire bi accès procès verbal boobu dañ ko annulé. Mhm. donc Khalifa Sall mais kon amoon na. amoon na. waaw ah, waaw mais ñu annulé ko annulé ko ah, juge bi waaw ah. justice mais bo waaw mais. déggoo ma la. waaw am na. loolu man naa ko xeex Sénégal ba mu ba mu dëgg man avocat maa ko xeex ba mu dëgg tey loolu lu ma la confirmer juge bi moo ko annulé justice bi ngay ŋàññ moo ko annulé jox Khalifa Sall dëgg ba pare àtte ko sur la base du rapport de l'IGE c'est tout Khalifa ñu waroon reprendre àtte bi yëpp nag ndax loolu. non. kooku tamit loi moo ko boo demee ci code de procédure. ba mu ko annulé taxawal dañ ko waroon xam nga il faut que ñi aussi xam yoon parce que fii ñëpp du xamuñ yoon. waaw d' accord mais bëgguma ñu des ci loolu nag. il faut ko waaw mais bëgguñ mais buñ ci des. moo ne waaw bu fekkee ne dafa am yeneen élément yoo xam ne juge bi mun na ko sukkandiku pour atte la daf lay atte te dafa amoon PV bi am rapport de l'IGE ñu écarté PV bi daal di ko atte sur le rapport e, yoon ma ko ko may. ok boobu sax visé nañ ko dans l'arrêt. d' accord. moo tax il faut que ñuy rétablir les faits. léegi léegi c'est rétabli. voilà je pense je pense yaakaar naa ni c'est rétabli yow xam mhm. nga woon. Mhm. ñun ñëpp nekkoon nañ ci classe. Mhm. dañu daan def composition. dina am zéro élèves yoo xam ne dañu am zéro am ñoo xam ne am nañ dix fautes am cent fautes. tey lu tax ngeen ne coalition benn boo ko yaakaar mi nga xam ne nekk na au pouvoir depuis douze ans. dem élection demaat élection demaat élection. defar liste defaatat liste defaatat liste am expérience. nekkul coalition bu juddu démb wala tey ngeen ne il faut mu def ay liste yoo xam ne il faut mu am erreur. Ah, mais nag loolu nag que daf jaaxal ne leen mais loolu loolu aussi mënut a ñàkk xanaa. mais lu tax muy ñàkk xam nga lan la. lu toll ci juróomi téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar xam nga liste nuñ koy defaree. déglu ma wax la lu toll ci juróomi téeméer déglu ma wax non déglu ma wax la. non waxuñu ma wax non non gis nga non non débutant bu def émission hmm. ku def dix ans mais mais mais Pape non non gis nga li ngay wax nii euh, Karim waaw Pape bàyyiwoo ma wax de. non non mais mais maître. dama lay wax argument bi ngeen di bëgg a joxe nii parce que affaire bi dafa nekkul loo non bi ngay joxe nii euh, dama xam nu ñuy defee investiture dama xam nu xam nga investiture mooy lan mais gis nga fiche yi ngay bind mais mais mais ministre de l'intérieur moo la koy jox direction générale des élections moo la koy jox fiche de candidature individuelle fiche de candidature d'une coalition ou d'un yow doo def lu lu dul rempli boo xamul nag luy scrutin proportionnel xamoo luy scrutin majoritaire xamoo ñaata nit nga war a def ci liste bi suppléant xamoo ñaata nombre. doo ma ni PDS xamuñu ko. ah xam moom la ñu war a def PDS non PDS. PDS defuñu fi defuñu xaw ma PDS defu leen defu leen ci pouvoir bi lu PDS deful ci pouvoir bi. attention doo ma ni Khalifa Sall xamu ko. attention est-ce que ñoom ñoo defar liste. mais doo ma non non doo ma non. est-ce que ñoom ñoo doon mandataires yi dafa dafa am dafa am lu ñuy def liste yi. daal di ne bon nañ jël tant de personnes ñu nekk titulaire tant de personne ñu nekk suppléant jox ko ñoo xam ne ñoom lañu ñu wóolu ne leen defal leen titulaire am na ñoo xam ne sax nombre de siège bi il faut nga def calcul pour xam le nombre de titulaires et le nombre de de de de suppléants proportionnel suppléant bokkul ak ak ak su ak ak ak ak ak euh, suppléant yoo xam ne ñoo nekk liste majoritaire yooyu il faut nga xam ko il faut nga jàng ko xam ko. boo ci defee erreur dañu rejeter sa mais am na ñoo xam ne jàng nañ ko mokkal nañ ko def nañ ko defaat ko defaat ko mais mënuñ ci def. erreur loolu yomb na de. alum ah, yomb loolu loolu loolu yomb na. yow dañ lay jàngal classe non waxuma waxuma li ngay wax nii ngeen def composition nga am 10 fautes. non non non maître man ma am zéro faute maître. mais est-ce que xam nga ni loolu loolu vraiment loolu lu suspect la loolu li ngeen di wax du argument loolu pourquoi rejeter wuñ liste Yaakaar parce que liste Benno Bokk Yaakaar ils ont de l'expérience ils ont très bien volé waaw d'accord d'accord léegi léegi Cheikh moom li mu wax mooy manque d'expérience moo leen ko yóbbee moo leen yóbbee liste rejetée yi ba ngeen dem ci ay ba ngeen dem ci ay recours yu dul jeex ndax est-ce que wàllu am xam nga ni am nañu ay rejet Cheikh maa ngi lay déglu dinaa ci tontu mais balaa ma ciy ñëw dama bëgg a fàttali monsieur le ministre que Barthélémy Dias Macky Sall ci boppam moo noonu ko di défiler naan boo ko laalee boo ko laalee bi ko au début du procès kon bu kon bu ni may ma may monsieur le ministre vous vous n'êtes pas assez calme là premier ministre de la république quand même moi j'attendais beaucoup plus de sérénité quoi Ici, non voilà voilà tu n'es pas serein tu, tu pas serein monsieur le ministre monsieur le ministre euh, soyez un peu plus serein un peu plus calme. Euh, docteur Cheikh baal rek nga wax olof ñu te te nga bañ ko topp quoi. waaw moom moom yow waxal rek. moom dafa serein wul ndeysaan. waaw mais léegi demal rek. donc donc donc lu ma ko bëggoon fàttali rek que ni li muy wax ci euh, li muy wax ci man. Mhm. mënoon na ko wax ci président di président Macky Sall donc bi dossier euh, Barthélémy Dias di tàmbali. mu wër naan boo ko laalee boo ko laalee te boobu justice la doon ŋañu moom justice bi muy défendre tey alors pour pour ñëw ci li nga xam ne moom la Maître Sèye wax léegi ma ko fàttali ni il y rien de jàpp lu lu jafe ci defari liste li mu naan dañ koy calculer yooyu dafay lëndëmal xelu xelu askan wi ministre de l'intérieur génne benn arrêté wax commune bu nekk ñaata ñaata nit lañ fa war a investir mm-hmm. donc loolu du lu jafe xam nga lii ci nekk mooy est-ce que mas ngaa dégg ci euh, ce type d'élection locale depuis depuis kañ la def élection locale nga dégg ci problème déedéet musta am problème investiture pourquoi parce que ren dañoo dëgëral mbir yi bett ci tous les acteurs politiques effectivement 48 72 jours yooyu ministres yi préfet yi préfet yi ah, ñun ñëpp. il ah, ah, compris y compris y compris benn boo ko yaakaar préfet yi dañ doon maye 72 heures bu sa liste matul nga ñëw mottali boo amee erreur et ça les gens te guident et c'est le principe même de l'élection locale c'est d'assurer l'inclusivité ku bëgg bokk nga mën a bokk parce qu'il faut que Sénégalais xam li xew loolu laa bëgg expliquer Sénégalais alors vous vous rappelez 2019 président Macky Sall dafa indiwoon parrainage mu nekk une forme de nu ñuy wàññee candidats ba nit ñi duñ mën a dem bokk ci élection yi. ren sa botte secrète moo nekkoon lii nga xam daf ko jox au dernier moment la le ministre de l'intérieur donc joxe yooyu instruction pour que lañ doon may largeur largesse euh, au au parti. ñu ñu dindi ko appliquer la loi de, de la manière la plus stricte possible je pense que interrogation bi nga posé c'est pertinent est-ce que pour quoi ñu dàq ci liste yëpp ay nit benn bokk yaakaar dégg nga dégg ci zéro rejet ça interpelle la conscience képp ku xel xalaat lay jariñ kuy xalaat rek ma nga xam ne il y a anguille roche par rapport ak liste de benn bokk yaakaar ndax bu ko ñëpp mënoon sax mën naa am benn rek responsable benn bokk yaakaar mhm. boo xam ni dina juum fenn mhm. di day tey tey na xel alors euh, je réponds aussi euh, à la question du ministre comme comme que moom dama interpellé daf koo neex euh, wàllu am nañ am nañ ay rejet mhm. nous avons choisi la voie judiciaire dañoo dem li ñuy am dañuy dem tribunal duñ ko def porte presse man maa nekkoon le responsable de la dans la coalition wàllu ci nu affaire investiture yi di communiquer avec tous nos mandataires au plan national mais ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo juum parce que seen liste matut parce que parce que dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo respectul parité et cetera dama leen wax yéen a juum vous avez fauté bii dossier duñ ko yóbbu tribunal parce que la faute objectif suñu responsable moo ko def par contre am nañ douze dossiers yu ñëw ba tribunal yoo xam ni préfet yi ñoom ñoom ñoo outrepassé leur prérogative parce que benn préfet amul droit même su ma ñëwee la carte parce que le 3 à minuit la doon yam même su ma ñëwee la carte di déposer sama dossier mënuma du ma du ma jël du ma jël sa dossier parce que nga déposer sa dossier le 3 avant minuit dafa bokk ci condition d'irrecevabilité alors balaa balaa nga ko man a si ko dossier c'est irrecevable il faut nga nga créer les conditions d'irrecevabilité juridique mm-hmm. mais nga constater ni le 4 la ñëw à midi wala le cinq la ñëw à 16 mm-hmm. mais dans tous les cas yoo xam ne préfet dañoo taxaw ni heure bi jot na du duma jël sa dossier les préfets ont eu tort te kooku dañuy demander la cour d'appel ñu répondre positivement li nga xam ni moom la ko coalition wàllu wala yenn coalition laaj pour que ñu rétablir yooyu liste dans leur droit parce que préfet dañu outrepassé seen i prérogatives alors ma yokk ci ni yaa a eu aussi un traitement discriminant discriminatoire yu préfet yi jël man ba mën naa jox exemple yu bari na damay jël benn rek à Thiès sur la liste départementale de Thiès Benno Bokk Yaakaar ak ak Euh, coalition la grande coalition wàllu ñoo nekkoon ku nekk nekk ci benn table di defar sa liste contrairement contrairement à ce le ministre c'est pas vrai que Benno Bokk Yaakaar dañoo dem avec des listes prêtes c'est pas vrai fa lañ toog ku ne di defar sa bopp préfet yow dama def si liste fee kay xam kay kañ la kañ la Bokk Yaakaar déposé le lendemain à 17h. le 4 à 17 heures bu ñu respecté woon la loi boobu boobu liste dañ koy dàq liste benn bokk bari dañu leen di dàq parce que bu Mbour le 4 à 15 heures la ñu déposé bu Thiès le 4 à 17 heures la ñu déposé. te accepté nañ ko. accepté nañ ko alors à 17h30. Ah, benn xamaguñ ci dara aussi nag. la à 17h30 coalition wàllu non xam nga quand même c'est le témoignage de notre responsable. ñoom ñaar ñoo ñoo toppalante man nekkuma fóon. Mmh. la ma suñu responsable benn boo ko yaakaar wax. taw muy lu yanu maanaam et ça s'est passé partout comme ça c'est-à-dire il faut pas il faut ñu ñu lëndëmal leen ñi li ñu wax le carte à minuit mooy le carte à minuit na la fekk ci biir préfecture bi c'est comme ça ça se passe. carte à 17h moom c'est autre chose. jusqu'au lendemain le carte à 17h la ñu déposé. ok alors à 17h benn Bokk Yaakaar dépose 17h30 préfet yi ndamaa <laughs> na. fu ko teg. fu mu ko teg duñ ko bàyyi mu jàll. alors xam nga pourquoi. alors non non di nga ko bàyyi mu jàll. parce que di nga ko bàyyi mu jàll. léegi parce que comme ça. ça mu jàll parce que parce que comme ça ça se pour dire simplement. waaw xar xar mu loolu du benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon. waaw il y plusieurs relations de fait yoo xam ni dañoo accepter benn bokk yaakaar au-delà de l'horaire bañal ko wàllu te loolu traitement discriminatoire loo yoo xam ne merci beaucoup préfet dañ ko indi xam nga loolu sur parole rek lañ ko mën a jàpp docteur Cheikh Dieng li nga wax yëpp mhm. exemple yi nga joxe euh, lan nga ci mën a tontu alors Papa Ngagne d'abord je rends hommage à l'administration territoriale mhm. man dama fekkee déposé naa mille 2014 déposé naa mille liste 2021 nekk naa mandataire fekkee naa d'abord le principe du nga déposé à minuit dañ la ne nga dugg ci biir sous préfecture bi wala préfecture bi mhm. balaa minuit mhm. c'est comme une course d'athlétisme dañuy tooñ sax naan sa bopp bu duggee rek c'est bon waaw xaaral ma wax la defal naa lool la ñuy loolu la ñuy considérer comme comme heure heure d'arrivée bi la ñuy considérer pour répéter li ma wax mais kon kon Cheikh mandataire yi nga xam ne ñoo nekkoon ci préfecture bu cees ñoom dugg nañ fa avant minuit mais dañ fa toog fa lañ toog ba le lendemain à 17h fa lañ toog ba le lendemain à 17h. mais dans toutes les préfectures. d' accord d' accord personnellement waaw le lendemain à 15 heures. te ñu ngi la fekk ci biir préfecture bi. est-ce que daf la fekk ci biir d'accord merci beaucoup allez-y. donc donc donc doyen Cheikh Dieng. doyen Cheikh Dieng. non bàyyi ko mu terminer s'il vous plaît Cheikh. may ma rek mu mu egg. non yow da nga wax ne dañ leen defal traitement de faveur. kon yow dañ leen defal traitement de faveur mooy mooy nga accepté ki defal naa defal naa man je vous explique je vous explique man de lan la lu ma lan la lu ma. parce que la nga accepté kii ci des le 4 à 17 heures mën naa accepté kii ci des le 4 à 17 heures 30. li xew li xew xam nga li xew Thiès un traitement discriminatoire li xew Thiès li ma la bëgg a wax mooy lii la ndëmal xelu nit ñi mooy nga ne leen. diw parce que parce que mais mais baal baal bàyyi mu terminé. wax nga ba pare docteur baal ma rek bàyyi ko moom mu wax si. bàyyi ko mu yeggali non non non non eggaleel eggaleel rek grand Karim. non alors li ma doon wax mooy principe yi. d'abord nañ ko fàttali nit ñi. d'abord règle yi lan moo ko andi dialogue politique moo ko andi parti yëpp dañ fa daje waxtaan juboo ne élection yi nii lañ ko defee man pour la première fois ma gis guide du mandataire ñu imprimer ko avec l'appui de l'Union européenne ku nekk danga nga koy tirer ah, yor ko ñu woo nit ñi ne leen ah samedi matin dem leen ngeen déposer seen euh, document bi wane ne yéenay mandataire mhm. ba pare ñu ne leen à partir du premier vous avez trois jours pour déposer man bi ma egsee dama lay jox expérience bi ma ci am egsi heure toog am nit yu la jiitu heure mooy lan balaa minuit am ñoo xamante ne dañ la jiitu nga toog xaar ku nekk jàll mais pour man li nga xam ne moom moo andi problème yi yëpp mooy dafa am coalition yu organisée yoo xam ne dañu am autorité yuy trancher des questions d'investiture ak coalition yoo xamante ne nit ñi ils sont désorganisés et ils n'ont pas tranché des questions d'indivi d'investiture yaa ngi wax Barthélémy Diaz le 3 la la le dépôt bi à minuit le 2 door a xam ne il est candidat investi ñeneen ñi doon xëccoo seen biir mais je peux le dire dans beaucoup de de communes boo demee euh, point e suñu commune jusqu'à la veille kan mooy jiite euh, nu mu tuddati Yewwi Askan Wi waa Pastef ñu ngi xëcc ñeneen ñi ngi xëcc boo demee Médina noonu boo demee feneen ak feneen donc boo déggoowul ci sa investiture boo kilifa yoo xam ne dañuy naxante seen biir kii ma dem fii kële dem fële. fi ngay nekk mais Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar avant le week-end ñëpp xam nañ kan mooy mandataire ak investiture ñëpp jot nañ suñu mandat ça il faut le dire vendredi. samedi matin ñëpp ñëpp jot nañ seen document dem def ko ñun samedi matin defe naa ñun en tant que candidat dinañ suñu réunion donc bu fekkee ci naxante yooyu nga nekk amoo jotu former say mandataire wax leen ni nii la nële la man de te doon deux exemples mbuur nettali nañ ma ne mbuur yeewi askan wi biñ ñëwee quatre-vingts majoritaire lañ àndi ak quatre-vingts suppléants alors que loi bi waxul loolu léegi c'est au préfet au sous-préfet nekk fa naan la non diw ngay dugal diw nga dul dugal loi bi dafa am lu mu wax da ngay andi chiffre andi parité andi tamit ay kayit yu mu àndal mais léegi bu fekkee parti politique yi taluñu loolu ñu ngi mi ñu ngi ci réseaux sociaux yi formé wuñ seen ay militants mais ñun egg foofu. amul benn erreur bu am ci ay liste Benno Bokk Yaakaar man li ma gis moom laa lay wax man je sais que les mandataires de Benno Bokk Yaakaar ont reçu leur guide. te am nañ kilifa yoo xam ne boo leen woowee ñu ne la nii ngay def nii ngay mooy du def nii man samedi matin on m'a appelé ne ma monsieur ministre na nga def candidat fan point amitié balaa midi na nga dem sa sous préfecture déposer nangam ak nangam boobu am na ñoo xam ne ñu ngi xëccoo investiture ñu naan diw dafa këf investiture bi diw dafa réer xamuñu fan la nekk il faut qu'on rappelle la réalité des investitures leneen li nga xam ne moo am wax naa la léegi mbuur man nee naa la fan point amitié ñëw naa di déposé gis euh, sama ay concurrent yoo xam ne ñu ngi leen abal ordinateur ñu toog di defaraat seen liste mais donc man bañu ma ko ko def parce que dama sur le terrain ñu atte ñu kan moo mën ak kan mais bu ñu jël administration territoriale bi naan leen nangam ak nangam ñoom ñoo def li man fekk naa foo xam ne préfet yee leen abal ordinateur sous préfecture Dakar Plateau yeewi askan wi ñu toog di corriger seen liste kon kooku beddi wuñ ko ñetteel ba leneen tamit ñu wax ko procédure électoral dafa am ay moyens de recours yu ñu ci prévoir te maa ngi féliciter coalition wàllu bi ñu amee lu leen métti dañu def recours en excès de pouvoir devant le juge administratif. non non du ñoom rek def recours yeeyu mais mais nañ def seen recours dañu ah, xaar ko nañ la fa xew dégg ngeen ko tey man gis naa document bu ñu ma yoon won tey xaw ma ndax vrai la wala faux parce que comme ñoom dañ bëri ay fake news yu ñuy circuler gis naa ci loo xam ne décision de justice la bu wax ne recours en excès de pouvoir bi justice bi nangu na ko donc comme li ma wax Cheikh Dieng rek mënoon ne bi justice bi baaxul. ci digg bi nga ne justice bi baax na après nga ne administration territoriale bi baax na mais ci kaawu Karim Wade baaxul woon. il faut respecter notre administration. voilà d'accord Cheikh Cheikh euh, Balma ci yow Cheikh euh, nan nga gisee aussi xaw ma ba xam wàllu def nañ ko ou pas mais gis nañu Yewwi ak yenn coalition def ko demander euh, seen ay mandataires ak seen ay militants ñu dem ci sous préfecture yi ak préfecture yi pour xool est-ce que listu Benno Bokk Yaakaar yi jaar na yoon wala jaarul yoon xam nga loolu aussi dafay indi rëcc mën na indi leneen. nan nga gisee loolu ndax jàpp nga ni itam lu tegu ci yoon la. alors avant ça je veux je veux lui boo ko jàppoo noonu day compliqué de mettre. doo ma répondre lu day dafay gàtt. dafay gàtt mu euh, dama koy dama koy dama koy fàttali rek ni benn bokk toutes les coalitions ay politiciens ay hommes politiques yu yàgg dem élection ñoo fa nekk. Mhm. mu yeewi. Khalifa Sall. Ah, bien sûr on ne fait les listes dans AFP dans beaucoup de communes. AFP on AFP on lui apprend. mais comme Benno Bokk Yaakaar aussi. alors je lui rappelle je lui rappelle mooy nekk la mooy nekk la coalition la plus désorganisée. parce que boo gisee tey ay listes parallèles yi Benno Bokk lañ ëppee ndax feneen. mais au moins je je je le rappelle ça et et et rappelle également que le président Macky Sall bi muy wax le président Macky Sall n'a aucune autorité ci ñi nga xam ne ñëpp ils ont fait des listes parallèles te foofu la ëppee. président Macky Sall président de Benno président Benno Bokk Yaakaar a attendu jusqu'à 48 heures avant muy joxe. Euh, certaines certaines son gouvernement une semaine avant c'est juste pour dire que li nga xam ne moo am foofu. am na non non pas non non vous dites des contre-vérités. non non vous dites des mercredi le mercredi c'est vous dites des contre vous dites des vous dites vous contre-vérités. non non c'est pas vrai. vous dites des contre-vérités. c'est pas une semaine avant que Macky Sall a tranché. est-ce que vous parce que moi je vois de l'antise et de. alors alors alors alors calmez-vous rek di di dinaa ci ñëw justement cas yi muy cité yëpp liste yooyu dañ leen dañ leen admettre sans problème mhm. est-ce que dégg nga kaw rejet Barth bi mu joxe comme contre-exemple mais ça signifie simplement que ñu ngi lëndëmal xelu askan wi ci li tax ñu rejeté liste opposition yi mu wax yëpp dañoo yàq xam seeni mandataire seen liste accepté parce que du tey du démb du bërki démb la ñoo ñëpp commencé defar ay liste di dem élection je rappelle que Yewwi ña fa nekk ñu ëpp espérance fop waa benn Bokk Yaakaar wàllu ña fa nekk ñu espérance fop waa benn Bokk Yaakaar <laughs> ceci étant dit bu fekkee ni léegi dañuy ñëw ci rush ci euh, les oppositions en particulier yi Yewwi yi di ko def wàllu également di ko def ok bërki dem génne nañ benn ñun benn en fait on a demandé ak sunu mandataires yëpp dans tous les départements ñu dem fi vérifier les listes de benn Bokk Yaakaar et des autres coalitions. Ah, mais loolu loolu def nañ ko man personnellement def naa ko démb. dem naa à la préfecture de Pikine vérifier na euh, liste yi gis naa gis naa la ma fa gis. loo fa gis lépp normal. pour l' essentiel am na am na lu normal. non da ngay wax rek. non non non la ma gis. li am na lu normal lu ci waaw. la ma gis normal ah. da non non lépp normal particulier gis naa ni am na benn condition boo xam ne donc mi ngi ci arrêté ministre de l' intérieur mën naa ci ñëw. waaw bokk na ci li nga xam ni perturbé na élection yi. Euh, les investitures. Mm-hmm. parce que ministre de l'intérieur dafa dem au delà de li nga xam ne moom la loi bi santaane ci. Euh, ci euh, mhm. les investitures parce que loi dafa préciser la loi yan type d' information lañ laaj lañ war a laaj au candidat ministre de l' intérieur bi muy laaj préfet bi ñuy laaj ñu laaj par exemple une clé USB contenant bu buy am les listes de manière électronique c' est illégal am na ay préfet yu ci dàq ay listes parce que indaal lu ñu la USB. waaw mais xam nga loolu loolu moom mais mais loolu moom. c'est illégal mais xam nga comme aussi ministre bi boo décrété na ko ba pare rek. c'est c'est légal mënatuloo ci dara. non non non doucement doucement doucement doucement doucement ministre yi ministre ministre bi ministre bi dafa dem au delà ministre bi dafa dem. pourquoi buñ ko buñ ko buñ ko rejeté. c'est illégal bu buñ ko rejeté c'est illégal non mais Dakar gi Dakar ci boppam. bi ñun suñu liste bi muy dem yow ma clé UGB bi ñu waxee dama ne bu ñu bu ñu dàq seen liste illégal parce que loi mooy déterminer lan la ñu war a yóbbaale boobu bay dem an préfet an bi fee xam dañ cee dàq nit ñi alors je je je reviens à votre question mm-hmm. mu bàyyi ko mu eggale article L 284 du code électoral moo wax loolu dafa ne mm. mandataire bu nekk am nga droit mm-hmm. nga dem saytu liste concurrente yi nga xam ni moom la moom lañ déposé à la préfecture et à la sous-préfecture. Ah, mais kon pourquoi ñoom ñu koy ñaawlu nag ñuy wax ni nii li ngeen def. parce que dañuy lëndëmal xelu askan wi. ba ah, mooy mooy le cinquième loolu loi électorale mooy le cinquième alinéa. mais pourquoi de l' L deux cent quatre vingt quatre de la loi électorale. li am mooy il y a un appel. alors pourquoi pourquoi pourquoi dans ces conditions. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga dañuy xam nga dañuy lëndëmal xelu nit ñi. Mm-hmm. di bëgg a jaxase opposants yi ak askan wi. alors que quand les man ba ma demee préfecture mais bu ñu ma ko teroon coow am parce que xam naa li may def sama droit la et c'est de la même manière que ba ko waa ba ko waa Kédougou bëggee def démb ba ñu gazé ci euh, le ministre le ministre Guirassy mais préfet moo nekkul ci dëgg moo nekkul ci yoon il ne faut pas euh, il ne faut pas il faut que li ñuy wax sénégalais yi dëgg par rapport ak lan ma Karim baal ma rek baal ma rek ma jox maître une minute une minute Ousmane maître mën nga ma ko may waaw d'accord allez dama bëgg a wax rek benn affaire d'abord tontuwul ci Kaffrine parce que mandataire bi 72 heures avant dafa war a joxe mandat am joxewu ko dem di yóbbu liste ñu ne ko ana sa mandat bon bref mais baal naa la ko tontu woo ci leneen li leneen li bàyyi dama la bàyyi oui mais loi dafa ni 24 heures oui 24 heures avant

à investir, selon l'opposition, les préfectures et les sous-préfectures pour obliger. non c'est pas vrai non non c'est pas vrai non c'est pas vrai. mais mais non non mais bàyyi ko mais après di di di nga si wax. c'est des comptes vérité. mais di nga si wax après yéen a sorti un communiqué pour dire à tous ces mandataires. waaw nañ leen vérifier l'ici. waaw mais ñoom ñoom ñoom ils disent y a y a des appels à l'insurrection. d'accord léegi léegi. loolu mooy lëndëmal xelu askan wi man mën naa wax loolu xalaat. tooñ Cheikh baal ma waaye émission bi dafa dafa jeex si vous plaît may ma rek moom mu terminer dama wax ne y a des appels dem dem leen ngeen dugg vocaux yaa ngi fi mais déglu mais mais Cheikh yow tam mais grand nag yaa ngi yaa ngi non mais mais nga baal ma yow tam ah, gis mu nga ko ko léegi jeex na très euh, naa continuer xam naa ne lu mu yàgg-yàgg di wàcc asamaan kenn mënu fa dëkk mhm. li ma la bëgg wax rek mooy il y eu dans le débat public sur les réseaux sociaux au-delà des communiqués ay nit yoo xam dañu wax ne dem leen ci dem leen ci sous-préfecture yi dem leen ci préfecture yi ngeen exiger sous-préfet yi ñu valider ñu valider mais loolu boo ko demee ñëw ci sous préfecture nga xam ne institution administrative la mais nit ki dina am nu mu la xaaree. man mhm. li ma fekkee man gis ko commune bi ma dëkk sous préfecture bi am na ñu fa dem ne dañuy laaj liste yi ñëw ñu jox leen liste yi ba jox leen sax yeneen liste yi ñu vérifier ba pare bëgg a jël ay photo ñu leneen no mën ngeen vérifier mais amul jël photo ak nangam ak nangam. Mhm. donc il faut féliciter l' administration territoriale ñi ngi def liggéey bu am solo ñun ëllëg bu ñu fi jógee yéen boo leen jëlee pouvoir bi ñoom ñoo leen di téyel état bi. Mhm. justice bi ñoon koy teel donc il faut les respecter mhm. je vous remercie d'accord question boobu waaw waaw man li may euh, bëgg wax mooy Cheikh dafa mel ni dafa yey boppam mhm. parce que dafa ne rejet yu bëri yi li tax mu am mhm. parce que on a donné des instructions à l'administration pour mu appliquer avec rigueur le code électoral c'est ça qui s'est passé parce que li muy wax yi yëpp c'est prévu par le code électoral dépôt hors légal c'est prévu par l'article l boo déposé hors délai c' est une liste irrecevable. l duñ ko nangu ba tey bu la neexee waaw mais li may wax am na c' est la loi qui le dit boo déposé hors délai duñ nangu sa liste yi nga fiy wax yëpp da nga de dafa am liste ñu rejeté parce que c' est hors délai liste incomplète c' est la loi qui le dit administration li mu lay jox direction générale des élections daf lay jox le nombre de sièges yow yaa koy répartir. liste proportionnelle ak liste majoritaire ak ay suppléants yaa koy def su la nee tu as droit à soixante-dix sièges yaay xam sièges yooyu léegi non non noonu le ministre a sorti un arrêté pour dire dans chaque euh, conseil municipal oui wala conseil le nombre de sièges temps nga war a investir à la majoritaire tant nga war investir feneen c'est-à-dire que loolu yaa a un tableau clair défi donné. d'accord oui loo xam ne mais yow yaa koy remplir de l'expertise. mais yow yaa koy remplir pas des calculs. yow yaa koy man ci question bi mooy mooy par exemple euh, communiqué yi ñu def euh, wàllu def ko yeewi def ko mu aju ci nañu dem ci sous préfecture ak préfecture yi xool listu euh, waaw benn bokk yaakaar yi ndax la bi demee te moom wax na wax na wax na article bi leen ko permettre léegi loolu lan moo tax. non ñi bokk ci benn bokk yaakaar. bu ñu nee ñaawlu lu mel noonu mandataire le mandataire am le droit dem vérifier liste bu ko neex du liste am même yeneen liste donc mandataire bi mu am droit bi Cheikh. taxawal rek taxawal rek Pape Pape pose pose Pape oui oui ma poser question kay bàyyi ma répondre non égalel égalel le mandataire. d'accord d'accord mandataire aussi loolu. am na droit dem effectivement vérifier yeneen liste yi. mais c'est pas les militants yu amul mandat c'est le mandat. ensuite c'est organisé. quand on fait appel à ce que l'opposition dem def rush dans les préfectures dem di photo di xool mais ça mais c'est le procureur qui c'est le préfet qui va organiser ça mandataire bi moom donc moo am droit de xool loolu nag aussi leer ci bopp nit ñi loolu leer na alors je pense que je pense ça a été très clair dans le communiqué de Déthié qu'est-ce que le communiqué a dit Déthié lu communiqué bi wax. bi def bi def bi def set. communiqué bu yeewu ne fait pas la loi. la def. yeewi laa wax communiqué ça l'engage. yeewi laa de la loi. non déet attention. non man c'est pas de la loi. yaa ngi lëndëmal xelu nit ñi maître. lu tax. parce que. Euh, la loi n'a pas dit ça. lire ko déedéet dafa ne nañu laaj sunu mandataire yëpp. ñu dem dans les préfectures pour vérifier les listes benn bokk yaakaar. waaw leer mais c'est ce que la loi dit. ils n'ont pas appelé à l'insurrection ils n'ont pas appelé le peuple à élire. non par contre on a moi j'ai entendu. c'est pas vrai l'opposition dit que nañu dem. donc qu'est-ce que les réseaux sociaux ont dit dans les réseaux sociaux on dit autre chose euh, les un mandataire qu'est-ce que les réseaux ah, sociaux ont dit ah. xam nga loolu c'est très léger comme accusation les réseaux sociaux ont dit. Ah, tey bu ñuy wax dañ naan lan la le mandataire du PDS wax. ñun suñu mandataire Mamadou Lamine Diallo dafa il note à tous les mandataires ni leen dans les 48 heures dem leen ngeen vérifier les listes de l'opposition ñun yamaluñu ko sax ñun ci mais du mandataire ñoo fa dem à Kédougou c'est pas les mandataires qui de c'est un groupe de personnes qui étaient là-bas au niveau de Yewwi Déthié a dit très clairement que suñu mandataire ba leen di laaj nañ dem ci préfecture ak sous-préfecture vérifier si Benno Bokk Yaakaar. d'accord alors si. avec ça on n'a même pas besoin de communiquer boo mandataire bi xamee li mu war a def il n'a même pas besoin de communiquer pour faire son travail c'est tout. c'est que vraiment monsieur Fofana vous êtes très léger par rapport à cette accusation bi ngay def à l'opposition ou à Yewwi ou à Wallu parce que déggoo benn responsable habilité à donner ce type d'instruction ñu wax ko. Euh, d' accord merci Cheikh jërëjëf donc euh, malheureusement temps bi dab nañu ñu dem ci tàggoo bi rek euh, le ministre Abdou Karim Fofana. waaw maa ngi sant bu baax ci débat bi. ak boo amee message aussi boo xam ne danga koy Cheikh Dieng moom ah. xam naa ne débat bi moom xam naa ne fi la ñuy jaar takkoo xarit waaye li mu wax rek xam nga ne nga ne gisoo benn benn communiqué bu ko wax waaye Kédougou ña demoon ci préfecture bu doon benn nit la surtout le ministre Moustapha Guirassy ancien député xam nga ne lu ko métti ko am. sous préfecture Dakar Plateau jox naa la exemple nee naa la ña fa dem mandataire bi dafa dugg ñu ubbil ko liste yëpp mu xool lenn lañ ko tere photo ak yóbbu liste mais dañ ko ubbil mu xool donc nañ respecté suñu administration territoriale maa leen di gërëm di leen sant te di woo ñëpp ñu am fu def élection wu jàmm euh, élection day am day jeex la vie continue donc ku ci nekk nga agir de façon républicaine te ñu bañ a nekk ci anarchie maître ah mais man li may ñaan Euh, parce que jàmm ci la lépp xaj réew mi ñoo ko bokk opposition man su suñu génnee léegi Cheikh xëy na ñooy ànd ñibbi donc yëpp parce que il faut que ñu xam ne réew mi opposition ak pouvoir benn la ñoom ñëpp xëy na réew mi lañ bëgg mais bokkuñu gis-gis am na yoo xam ne nag daf ko fi jarul te toujours yàlla jox ñu fi ay misaal yoo xam ne bu dee ay jullit lañ laa wax suñ ci sukkandikoo am na loo xam ne politique jaru ko parce que réew mi Sénégal buggul fitna képp ku koy oo ci fitna li ngay bëgg doo ko am boo xoolee ñi fi jaar ñëpp falu fi faluwuñ ci biir fitna gis nga nguur kenn du ko am ci fitna ou bien dans la rue nguur dafa am yoon c'est le processus démocratique ay élection yoo xam ne da ngay ut ay xob nga jàlle ko ci urne pour am nguur mais boo taxawee nag ne nguur dama koy jël par force damay indi fitna jël par force boo ko jëlee aussi fitna dana la fa jëlee donc il faut que loolu ñu xam ko ñun ñu nekk ay démocrate nekk ay républicain moytu fitna nekk jàmm def li nga xam ne moom la loi bi wax moom la décret yi wax noonu la réew di doxoo dans un pays démocratique et je crois que le Sénégal c'est un pays démocratique dañ ko renforcer mais bu ñu ko reculer merci maître jërëjëf docteur Cheikh Dieng alors juste pour le euh, fa dëgg yàlla donc je suis d'accord avec leur et je pense que mooy li nga xam ni chaque jour ma wax ko réew mi jàmm la soxla réew mi dal la soxla mais réew mi justice la soxla transparence la ñu soxla ci élection damay fàttali ni loi moo ñu may ñu am accès au fichier électoral en tant que responsable des élections bind naa ñaari yoon ministre de l'intérieur pour exercer droit boo xam ne loi électorale moom a ko may. daf ñoo daf ñoo daf ñoo tontu par le mépris. ma fàttali ni ma fàttali ni li nga xam ni mooy fitna yu bari yuy am ci Afrique ak yeneen réew lu koy indi mooy élection yu transparent wu mooy foqati nguur comme ni ko président Macky Sall defee en 2019 en éliminant ses challengers les plus significatifs comme Karim Wade loolu du indi fitna lu mooy liy indi fitna ci ci am réew mais fàttali tamit nag dañoo jëm ci élection yoo xam ni du du wàllu Macky sàll du wàllu gouvernement mhm. gox goxaat la dañoo war a ubbi liste yi pour que képp koo xam ne jàpp nga ni yow am nga enjeu boobu war a indi si sa gox goxaat mhm. ñu may la nga dem présenter d'accord sa candidature merci docteur Cheikh à ta à jërëjëf et ñu may population yi ñu mën a mhm. fal ki nga xam ni moom lañu bëgg loolu la réew mi soxla mais non pas président Macky Sall di imposer ay maire comme ni mu imposer boppam à la tête merci beaucoup jërëjëf mbokk yi doon ànd ak ñun ci euh, télévision Futurs média ñu gërëm leen bu baax euh, tey faram-fàcce bi nii la demee woon euh, ñu daan ñu àndoon ci ak maître Ousmane Seye moom mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar daanaka moo nekk avocat coalition bi sax maître Ousmane Seye. Euh, ñu koy gërëm bu baax ci wuy bi euh, di gërëm itam le ministre Abdou Karim Fofana moom la ñu dénk wàllu PSE moom itam mu nekk candidat ci point E euh, nekk itam ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu àndoon ci ak docteur Cheikh Dieng moom itam nekk candidat asa moom candidat sortant la candidat aussi à la ville de Pikine moom itam bokk ci coalition la grande coalition wàllu Sénégal Euh, ñu koy gërëm bu baax waroon ci ànd itam ak euh, waa PASTEF mais malheureusement xam naa ni seen jot moo xaw a xat rek waaye jombul prochaine fois dinañ ñëw parce que loolu itam baax na ci ci ci débat yu mel nii ndax dafay am solo ñu daal di faram fàcce euh, mais xam naa ni xëy na prochaine fois incha allah dinañu disponible kon mbokk yi ñu leen di gërëm bu baax di gërëm itam Chérif ja ci ni mu coordonné vraiment débat bi Chérif ñu ngi koy remercier di gërëm la régie Vieux ak ñi nga xam ni ñoom la àndal di leen jox rendez-vous incha allah euh, ci beneen numéro faram bu ci